asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki téléspectateurs yi Al Mouridiyyah ñi ngi leen di nuyu di leen sant ñi ngi fii ci dëkk bu tedd bii di Touba ci kër Cheikhul Khadim jàkkaarloog jumaa ju mag ji ak penc mi fépp nag ñu di fi dundal guddik eh, yonente bi sallallahu alayhi wa ni ko daal Hizbut Tarqiyyah baaxoo defee at mu ne ci ndigalu mu Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides mu di ko ànd ak moom fii ci kër Serigne Touba nga xamante ni moo jàkkaarloo ak jumaa ju mag ji incha allah foofee la ñu fas yéene ànd ak yéen won leen kuréelu daara Hizbut Tarqiyyah yi nga xam ne ci suba ga lañu door liggéey bi naka noonu itam ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñoom waxtu wu ci liggéey boobu ak ni ko Serigne Touba diglee yi nga xamante ne moom la guddi gi war a àndal ak mbooloo mu takku mi nga xam ne ñoo fa nekk fas yéene ànd ak ñoom ci njàngum alxuraan ak njàngum xasida kon loolu la ñu fas yéene incha allah ànd ak yéen fii ci dëkk bu tedd bii di Touba ci guddik Leylatu Mawlidin Nabi atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar muy 1442 dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre incha allah ñu fas yéene dugg ci biir nag wan leen liggéey bi ni nga xamante ni ni lay doxee fii ci kër Cheikh Fatou ngi fi ak eh, sëñ Atou eh, jëwriñ daara Hizbut Tarqiyyah ginnaaw bu ñu ngi ko ziyaare ndokkeel ko ci guddi gu tedd gi daara Hizbut Tarqiyyah ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha dig eh, digle woon ñu ngi fi kuréel bi sës rëkk ci moom fas yéene ànd ak moom guddi gàmm gi. waaw ñuy sant yàlla bu baax ci biñ ko teeweewaatee di siyaare sëriñ bi di ko ndokkeel ci bis bi di sant yàlla nag bu baax ci tawféex ji nga xam ne. amaale nañ ko ci biir tawféexi boppam ci euh, muy loo xam ni dolli ku na dolli na ku ne rafet njort ndax bis bu tollu nii mu kenn mënta defal nit lu gën a rëy lii mu defal ñëw sës rek ci moom ñu ànd def xasida yi muy muy muy muy muy lenn rek nag di sant yàlla bu baax a baax ci lim waa baaxoo ànd ak euh, lim baaxoo wax wax ko ànd waxe ko ànd ak ñun nga xam ne da daan daan nañu wax ne du yéen du man ki nuy womat rekk la moom loolu moom ñeent fukki at ci ren wala lu ko ëpp moom mosu cee jóg ñun kay ñoo am rek yëfi doomu aadama nga xam ne moom mun na wax mu fexe mukk ba jege ko waaye moom waxtu wu ne mi ngi nuy jege ñuy sant yàlla bu baax a baax te te di di di ndokkeel lislaam bi yëpp nag jiital ci seexul xadim mi nga xam ne moom sëñ bi moo ko fi nekkal tey di mu teg na ci yoon nu koy dundalee ni mu ko bëggee muy jàng xasida yi alxuraan ji ñu koy def fee baas ba fii nu ko fii jàng ci kaw waa ah, ñu ko yëkkati ñàngum lépp di ay bernde mu mu mu mu mu koy lu ñëw rek mën nañ ko tas lu ñëw rek mën nañ ko joxe lu ñëw mu mu mu yóbbu ci biir nit ñi fàttali na njaareem yi nun ñi waañam lañu euh, ci ci ci ci waañam yëpp nga xam ne te ba tey ndab yaa ngi dem te bëccëg ba tey noonu la ko boolee def waaye lu ñëw rek joxe na lu ñëw jàllale na ko lu ñëw am na teewlu man xam fu mu gën a yeeyee mu yóbbu ko fa ñuy sant bu baax a baax sant ñaan yàlla nu fekk ko ay déwén déwén ñaan yàlla moom mii nag euh, sëñ Tuubaa bàyyil nu ko fi du yàgg ñu ànd ak moom mu am ci cawarte ci kattan waaw ci gudd fan ak wér waaw jërëjëf luñ ko bëgg a ñaanal yëpp mën na ko wax waaye sëñ Tuubaa xam na ko liñ bëgg ci luñ bëgg liñ bëgg ñun ci moom mi sëñ Tuubaa xam na ko moo nu ko gën a xam moo nu ko gën a gis moo nu ko gën a bëgg moo tax yaakaar am nañ yaakaar ni am nañ ko jëf ok euh, jërëjëf euh, ba tey ñi ngi fii rek ni leen ko waxee woon ci kër Cheikhul Khadim fi nga xamante ni fa la ñuy defee gàmmu gi euh, daara Hizbut Tarqiyyah ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñu ñëw nag ci barab bi nga xam ne ñii féetewoo wàllu naanu bernde yi moo xam yu tàng yi wala yu sedd yi ndax xam ngeen ne Euh, sëriñ bi noonu la ko digle bi sukkarin aw laxami comme ni mu ko waxee ci Jazbul Xuloob fii nag euh, ñu fiy defar xeeti naanu bernde yëpp moo xam kafe ak yeneen yu ni mel ñu fekk fii daara Hizbut Tarqiyyah ni ñu ko baaxoo defee ak ñoo xam ni waa ahlu kafe ci njiital soxna maam Issa Mbacké euh, at mu nekk ñu indi seen i kuréel ak seen équipe ñu ànd ak daara ji ci liggéey bu rafet boo am solo yàlla dogal na ñu nekk fii ak sëriñ Ismaïla saaña ak sëñ daam xam naa danañ leen jox leeral ñu nan la seen liggéey doxee ak nan la ñuy taxawoo wàllu liggéey bi diirub li nga xamante ni mooy gàmmu gi siyaar nañ baax Cheikh Mamadou lamin siyaar nañ la baax a baax a baax di sof suñuy kàddu fi nga ko waxee sànq rek gàmmu gi sëñ bi dafa wax bisu karen aw laxamin ni mu ko waxee ci taxsimuhu bi sunnati ñun fànn gi ñu féete mooy ci bisu karen aw laxamin gi bisu karen aw laxamin gi nag bi ñu xëyee ba tey yàlla dogal na maanaam lu jëm ci ataaya ak café ak bisaab ak citron ñu ngi ciy def suñu kéemtulaay kàttan fi mu ne lii nga fekk ñu defar produit bi ñu defar ni meew la dañoo fas yéene doon meew mu sedd te itam bëgg nañu itam mu am bu tàng itam waaye xam naa bu sedd bi moo ciy ëpp doole ndax comme guddi gi moom day guddi goo xam ne wax dëgg dañ ko war a i njëriñ bu soobee sëñ Tuubaa ñun moom suñu côté ci laxamin gi ak bi suukarin bi du du dese ci ñun bu soobee sëñ Tuubaa ndax gars waa cuisine ñu ngi wàccee laxamin gi ñun ñiit ñu incha allah itam moom du du du du seddee suñ côté daal bu soobee suñ Tuubaa waaw mu ngoog. Euh, sëñ euh, kon yow itam euh, nga ànd ci liggéey bi boobaak léegi nag ngeen di ko ànd daar daara Hizbut Tarqiyyah muy liggéey bu am solo ci wàllu kafe gi nan ngeen doxalee wàllu liggéey bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu bu baax tey ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi loolu tawér di nuyu bu baax si Mouhamadou Lamine ñu ngi lay jaaraat bu baax di nuyu waa daara Hizbut Tarqiyyah yëpp di di di jégalu bu baax suñu Ismaïla Euh, fi mu daanee rek foofu rek la wallaay waruñu fee sos dara waruñu sof ko fa ndax euh, ni mu ko wax rek bu sukkari awla amin moom daal lépp a ngi taw fexe ndax moom du mu Mountakha ku ne xam ne ne daayira Hizbut Tarqiyyah lépp lu muy def moom mii nga xam ne moo fi Sëriñ Tuubaa maanaam yéen la koy àndal yéen la koy yéen la koy yéen la koy yéen la koy tërale nga ànd ak moom ci liggéey bi lim ne gëmewu leen te loolu mooy dëgg ci moom kon loolu yàlla na yàgg kon euh, li li li sëriñ bi wax ne jàng xasida ak naan kafe ak xeeti berne yi daa bokk ci mandargam yoonu murit moo waral nag ñu sof ak suñu suñu suñu mbokki bi yi nga xam ne ñu tey ci liggéey bi luñ ci yëngu rek ñu ànd ñu ànd kook ñoom di di di góorgóorlu ci liggéey bi macha allah kon ñu ngi leen di jaajëfal baax macha allah jërëjëf macha allah. waa kay jërëjëf muy euh, Serigne euh, Dame Thiam ñu gën ko miin ci sëñ Dame Café euh, muy féetewoo liggéey bi ci taxawaayu soxna Maam sa Mbacke bi nga xamante ni yàlla dogal na Euh, lu yàgg mu di ko ànd ak Hizbut Tarqiyyah liggéey am solo bi ñu fekk fi mboolem jëwriñ ñi nag sëñ Ismaïla Sagna wax ci seen tur kon incha allah nii rek lañ koy gisee te it fépp fu mbooloo nekk ci diiru guddi gi ci biir kër gi incha allah seen i berne dana la wa fekk. waa koy jërëjëf ba tey ñu ngi fii ci kër Cheikhul Khadim ak euh, ci biir euh, kees gi nga xamante ne mooy Daaru Salaam kuréel bi di jàng sës rëkk ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ñu ngi fii nag ak sëñ Ahmadou Sidi sàmb di taxaw ci wàllu protocole wàllu yi sëñ Ahmadou Sidi Samb mu mel ni direction générale ni ko sëñ Aatu waxee jël na lépp luy matuwaay ci kër gi ñu bëggoon xam nan ngeen doxalee seen liggéey ci biir kër gi rawatina barab yi nga xamante ne bernde lañ ko jagleel. waaw seen Lamine ñu ngi leen di ziar bu baax di sant bu baax ci taxawaay bi ndax euh, comme ni ngeen ko leeralee rek ñu xam ne guddi gàmmu seen tool yi mu santaane ci ay bernde ndax anniversaire la te anniversaire ku ne xam ne ne aspect bernde bi da cee am doole lool moo tax sañu aatu ci supervision am dafa euh, waajal loo ay plat yoo xam ne day dëppook bis bi ba noppi boo koy servir it da yombal li nga da yombal eh, kii liggéey service am ndax lépp da ko def ay pièces yoo xamante ne bii lu ci ne dinga nga moo def ci ay barquette di ko séddale kon loolu préparation boobu moo tax tey jii boo ñëwee ci kër gi mbooleem foo xamante ne bii barabu gàmmu la tàmbalee ko fi sëñ bi nekk nga xam ne moom fu mu nekkal boppam foofu it lu fa war a am ci ay xéwal am na fa ndax ku nga xam ne ne Sëriñ Tuubaa fu mu nekk fu ne ay xéwal da ko fay wër kon foofu tàmbalee. fees feesal ko dell ba néeg bi fees dell nga xam ne amul lenn luñ bàyyi loo xamante ne bii amul ci néeg ba xam ne moom fa mu toog lay toog di xool fu xëy woo dem mu mu di ko fa yóbbu amit ay oto yoo xam ne dañoo gaare ci biti yëpp ay booli yoo xamante ni yëpp daa fees dell ki monsieur ginaar gi xeetu benn yu ne mun na ko ca néegam yor listam di digle ñoom ñoom sëñ Cheikh yi jëfe ndigal li ak ñoom sëñ Mountakha Sokone bu dee saal bi si si moom nga xamante ne bii ñi nga gën a jege fa la ñuy nekk ànd moom guddi gi foofu def nañ fa benn équipe boo xamante ne bii lépp am na fa. salle bi ñu jàngeet boo xoolee image yi xam ne dara manqué wu fi loolu mooy bâtiment bi nga xam moo moo sës nekk sëñ bi boo jëlee ci boo génnee fi nga xamante ne bii fa la waa kuréel bi nekk ndax tey jii fi ñu jàngee ku jàng ba noppi day génn ku war a jàng day toog fa ñuy toog it def nañ benn dispositif boo xamante ne bii ci wàllu benn boo ñëwee ne leen toppatoo boo jàngee wu ne ba ñu toppatoo la. loolu bu ñëwee dem ci barabu durusukaay bi nga xamante ne bii mooy bu dugg sëñ Fallou foofu it lañ fa dressé man na presque cent kilomètres de table yoo xamante ne bii yëpp dañ koo dressé ay bernde yoo xamante ne bii de tout genre lépp loo xalaat ne jekk na si anniversaire rek def nañu ko fa. donc ñëw ne ci kees soxna yi nga xamante ne bii moom mi ngi ci pale ji li mbay bi foofu it lampeer mu fay am ndax benn moom amul xaaj ak seen bu dee yàlla suñu borom moo tax amul xaaj ak seen loo waral. bu ñu noppee am benn équipe boo xamante ne bii moom la ñuy wax waa distribution euh, euh, beñe ak collation ak meew ak ndox nga xam ne ñi nga xamante ne bii nekkuñu si di dugg ko génn ñooñu it fu ñu nekk it dañu fay fekk. سبيلة بكل الجنة من دار من أن يعطى المنة قبلي سبيلة بكل الجنة من دار من أن يعطى المنة